tuuma sats ne kuréel bu jaarul yoon la loole dafa mel ni rek ñàkk a wormaal seen ñeent fukki at ak juróom yi nga xamante ne am nañ ko intersyndical yu dokeer yi nag daal di fësal ay këyit yu baree bare ci yooyee nag benn bi firndeel seen nekkin mu nekk nii ñu téye ngay wax naa kër googal valable légalut loolu nopp dina ko dégg mais xel du ko nangu l'ex-président de la République monsieur Abdou Diouf a privatisé le bureau main d'œuvre portuaire. buñ sukkandikoo ci ñoom nag li ñuy daal di gàll seen ndodd du leneen lu dul yàq der te kenn waralu ko ku dul ab autorité administrative. ministre bi nga xamante ne moo ñëwoon mool 1 ànd ak inspecteur de travail dafa ñëw amul information bu doy loolu moo waral erreur bu ci am. lépp loo xamante ne dañu ko soxla ci kayit bu ñu déglu woon lépp dina ko génne mais bu fekkee da nga ñëw ci kër. da ngay jaar ca bunt ba. kookee nag daal di bàyyeekoo ci bànqaasu service de l' inspection du travail ana fan la ko teg. inspecteur régional bi dafa féete. parce que ni mu waxee waru ko waxee ndax ay nit bu ñu ñëwee. surtout ay ndaw journalier porté plainte entreprise yow déglu nga juboo amul ba nga transféré dossier bi au niveau tribinal amatoo pour wax ci yooyu les syndicalistes nag ñuy ñaan njiit yu yees rek ñu daal di ci àddu jàpp nañ ñi seen i jàppandal euh, dina tax liggéeykat yi ñu gën leen a jox worma. parce que décret bi mënu teg bo sappi leen ñu daal di koy jëmmal ci atum 1996 euh, si nag lu ëpp junni ak juróomi téeméer liggéeykat lu ñu jël bés bu nekk. loolee nag am njëriñ bu baax euh, ci port autonome de Dakar fi nga xamante ni nag euh, téeméer boo jël juróom-ñett fukk koomu Sénégal foofu lay aw.